Bonjour, comment ça va et santé loo xam ne dafay baax ci néegu sëy bi néegu sëy bi nga xam ne dafay faral di am ay jafe-jafe bu fekkee ne ni ngay lekk baaxul ndax dañooy gis na ñun dañuy faral di lekk-lekk yoo xam si ne dañuy indil ay jafe ndax bu fekkee ne yaa ngi lekk li nga xam ne moo di yàpp di ko boolee am na moo di jën wala ngay lekk jën di ci teg li nga xam ne moo di soow yooyu yëpp dañuy indil ay jafe-jafe naka la ñuy def ba mën ko saafara ndax bu fekkee ne yaa ngi jël li nga xam ne moo di banaana dafa nekk loo xam si ne dafa am solo lool ci góor bu fekkee ne danga koy lekk sa guddi laata ngay ànd ak sa soxna banaana boobu dafay am njariñ lool fekkee ne tamit ne moo di avocat avocat nekk fruit boo xam ne koy lekk lu bëree bëri surtout laata bu fekkee ne yaa ngi koy jël dafa ne dafay am solo euh, ba tey li nga xam ne si ne moo di soble ak laaj nga di ko boole dafa nekk loo xam si ne dafa am solo ni nga koy defee nag mooy da ngay di jël lu tollu juróomi doomi laaj daal di koy jël suul ko ci doom bu tàng daal jël soble si daal di koy fejor moomu àgg nga daal di jël laaj bi daggate ko ci daal di di ko lekk sa guddi laata ngay tëdd dafay baax ci góor te dafay yeexal li nga xam si ne moo di ànd gi ngay ànd ak sa soxna bu fekkee ne da nga bëgg mu yéex loolu daf la ci daal di dimbali bu baax a baax yaa ngi bëgg ànd gi yéex ba tey jëlal li nga xam ne moo di pomme de terre pomme de terre bu fekkee ne yaa ngi ko jël jël xob bi nag waxuma doom bi da ngay daal jël li nga xam ne moo di xob bi daal di koy togg ba mu ñor nga di ko loolu tamit dina baax ci góor lool te dafay yéexal li nga xam ne moo di ànd gi nga ànd ak tamit sa soxna ba tey persil boo ko jëlee boole ko ak na moom tamit dara gënu ko baax ci góor junjeer nga jël ko moom it def ko comme sunguf daal di jël muscade boole ko ci daal di jël xorom polle nooy nga daal di jël tamit jar loolu lépp nga wal ko doomi xabatu sawda yi daal koy jël loolu lépp nga fexe euh, def wal ko ba def sunguf nga daal di koy jaxase ba mu àgg di ko jël kudd bu ndaw dara gënu ko baax ci góor mu nekk loo xam si ne lu am solo la ci góor kon tey jii loolu lañ leen indiloon ci biir néegu sëy bi mu nekk euh, garab yoo xam si ne euh, naturel la te dafa baax lool ci suñu wàllum wér gi yaram kon jërë ngeen jëf mbokk ñuy topp ci 24 actu yi jërë ngeen jëf Masume,